pour ñun bu kiiw dafa am ñoo xam ne dañoo gëm ci côté Tijaan ñoom gëm nañu salaatul na ñoo xam ne gëm nañu tasawuf mais ñoom li ñu paree wax Tijaan xam baax na mais ni yëf-yëf fu kii na bu dee ñoo xam ne ñoom dañuy jëfandikoo ñoom nee na ñoom waa sunna la ñu gëmuñu sax tasawuf ñoom nee na salaatu salaatu Ibrahima yëpp moo ci gën ndax yonent bi dafa raam. waaw waaw dana jàpp. gën nga kon salaatu Faatiha moom dafa xanaa yëpp après la ñëw ndax ndegam ndegam ab doxal bi téye laaj moo màggee Cheikh Ahmed Tidiane Sène juróom-ñaari téeméeri ak juróom ab doxal bi téye laaj. waaw màggee na Cheikh Ahmed Tidiane juróom-ñaari téeméeri ak ak juróom. ak juróom waaw. te xool boo dee xool diggante ab doxal bi ak ak yeneen yi xëy na mën naa am muy am ñeent. téeméeri at wala ñetti téeméeri at yooyu te Cheikh nag juróom ñaari téeméeri at yu doog kon di la wax ne salaatul faatiha moom kenn maanaam kooku wali woowu la ko yàlla jox li tax mooy salaatu bi amul taslim moo tax gaañu ni gënu taslim mooy allahumma salli ala ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam taslim ñu ne salaat bi comme amul taslim mënul gën ci salaat bi ñu ne ko akay salaatu bi taslim moom mooy inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim kooku mooy sun taslimu salaatu bi wàcce kon am na moom nag li tax nga xam ne du salaatu bi du nit defaru ko du waxu nit حق قدره ومقداره العظيم كم قمت حق قدره mooy ñun suñu planète yi mu ngi ci biir xàq yi. waaw planète yi ngay dégg yëpp ñu ngi ci biir xàq-xàq yi. galaxie ay galaxie la kenn xamul ñaata la. yëpp ñu ngi ci biir xàq-xàq jant bii nga xam ne mooy sant xam ne ëpp na suuf si suuf si un million fois. moom jant bi. mu ngi ci biir xàq jant bi am na beneen muy muy muy chiara ci boppam ñu ngi tuddee xàq xadir kon xàq xadir kenn xamul fu mu yem ku dul yàlla looloo tax a dégg goo kenn alxuraan tax andi na xàq xadir wam miqdaar mais dama ne xàq xadir bi kenn xamul munu koo xayma ci àddina mooy nan la garaatu yonent bi toll ci àddina mooy xàq xadir yonent bi garaatam ci àddina kenn dafa xam mu toll. waaw kenn ko nag. waaw léegi nag miqdaar mooy nu garaatam toll ci yow mal xiyaam kenn xa xam ne mu doon kenn xamal ko waaw loolu nag foofu la mbir mi lawee léegi nag ki gëm maanaam ndax islam dafa bari ay firqa ñii gëmuñu salaatul faatiha ñii salaatu ala nabi gëm nañ ko ne yeneen yi boo demee ci borom dalaa'ilul xayraat ñaata salaat moo ko place yooyu bare tey tam li muy bare bare ak ñeneen ñeneen ñeneen. yow li mu taal bi ah. ay salaat la ko jëlee li mu taal amul de amul taal foofu la jëlee. ah foofu la jëlee. waaw yow bu la neexoon nga def toog def sa salaatu ala nabi te dañ koy nam allahumma salli wa ala ruhi sayyidina muhammad hmm? اللهم صل على من روحه محراب الانبياء والملائكه والكون ماغي جولي سي ليغا خامني روحام موي ييغ واي يننتي اك وليدي اك ملائكه لك موتاخ كو نيك ليغا گم الاسلام ني گم ني ني گم ني مي نا ني گم تاريخ تا گم شيخنا تيجاني سعيد نور تعالى سيد الحاج ماجي مكو يوسف بن جون فيه mujj ci kanam mu mujj fii euh, dugub géej gi ñëw dell mu sax lu ko ndox mi laal rek mu def effet ba mu dem ba nekk dugub muy mbool ci fi ñu taxaw Seydil Hadji Malick xool Saïd Noor ne ko Saïd bàyyi yëpp te dellu ci salaatul faatiha Saïd bàyyi yëpp te Saïd lu nekk la xamoon mais Seydina Hadj Malick dafa ne ko bàyyi yëpp da dem ci salaatul farat. xam-xam ya yoroon yëpp yëpp yëpp ñu gas gas ko. taal ko ci kanamam suul ko Seydina Hadj Malick ne ko Saïd Noor dellul ci salaatul farat su ko defee nag islam xaal foog nga am foo féete. loo gam am na ko taaw ko weeti loo gëm rek ah. benn waaye ñëw na taxaw weddi loolu ah. yow nag yow yaay am fayda ah. xam ne ku toll na Seydil Hadji Malick du nit ci caaxaan ko naw Cheikh Umarul Fuuti ku ne xam ne du nit ci caaxaan maam Abdoulaye Niass nii ci kaw la ku ne xam ne du nit ci caaxaan waxuma Baye Niass rek maam Faye seen wéyjur laa waxuma laa ñoom waaw kooku xam ne du nit noonu nag ngay wëree di wëree di wëree di wëree ay mag ñoo xam ni kenn ku ci nekk mënu koo xeeb ci diine te kenn ku ci nekk nitu yàlla piir la te salaatum paakee nañ ko boo taxawee nag koo xam ne nee na salaatul faatiha gënul nga neen yàlla ko yemee mais yow sa sëriñ nga wax ni man ni sama sëriñ wax laa gëm bu dul loolu da ngay yorante rek waaw ndax maa ngi ci yor naa benn téere fitnatul wahabiya wahabiya ñoo ma ko yónnee waa tur mais booy xool moom sax dafay xaw a critiqué salaatu ala nabi mu bari waaw ñoom daanaka dañ ko xaw a man islam daal ay kuréel yi kuréel yi kuréel la mais da ngay am fulla ni kii mooy sama sëriñ li mu wax laa gëm keneen nag weddiwuma la mais lu mu wax moom la àndaat mais man lii laa gëm waaw nag képp koo xam ne ndax maam si Ahmad Bamba weer dafa ñu tuddee Maaxuus Andina, na waxuma nag ni waxuma nag ni ndax loolu du sama ni yow moo wax mais maxuus dafa yomb maxuus mi ñu jox sëñ Touba est ce que ku dul moom sax taxul ñu lu jëlee ci yàlla dafa jëlee ci yàlla jox ko Touba moo tax sëñ sëñ Tuubaa ne naa si kan bi kitaabu mustaqbal yi jàpp naa ci alquran lépp lu ma xam di jàppe ci yàlla ndax bi yadil qaa'idil bët ne ko nag anta ajzi wa muxtarin anta jaay anta tanzi yaa fahara kulla nabi képp ku bëgg a bëgg sa digganteeg yàlla képp ku bëgg a tiitaru jàppal ci alquran mooy jiital loolu la ñuy def mooy werd woowu mooy max lan mooy werd al werd bokkul du kudd boo demee laf dafa la koy jàng ne ilal wérdi li naadimi al wérdu foofu waxul wérdu mooy yow ni kat am naa samay naafila yoo xam ni guddi guddi yëpp bëgg naa ko def du ma ko bàyyi loolu mooy wérdu léegi nag nga nga nga yeewu ci heure boo xam ne bëgguñ ko fi naafila te yow nga amoon doogu naafila nga biddanti may nañ la loolu mooy wérdu maaxuus nag waaw bisimilah waaw maaxuus nag mooy bés bu jot alquran ngay natt la bu ko mënul a am màq moo tax sëñ Tuubaa rek ko ma jox ko nag ba mu xamee ni ñii mënuñu ko mu jox leen yow man man ngaa moo tax da wax ne nit ki balaa muy nekk xutbu samaan il faut mu mokkal alquran képp ku ne ne xutbu samaan la te mokkalu alquran du ko non non xutbu samaan dafay mokkal tegtal bii rek mooy wane ni kii xut bu samaan la ndax mokkal na alxuraan ku dul ku dul ak noo marta mu mat kii marta ba xut bu samaan sànni mënul ne loolu tax xale yi ñu di leen sonn pour ñi xëy na ñuy tax ñu ko dina sax waa ji dafa ne sama benn mbokk bu nekk Égypte fa la doon jàngi ñëw indil ma téere yi téere yi braq téere yëpp la roñ indil ma li ma Maodo Touré ñoom bokkandoo woon nekk mais bi ko prof bi doon jàngaloo alquran ne a'udhu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim bala fàtte mu prof bi arrêté bi mu ko arrêté mu woo prof yi nekk foofu yëpp ci jànne ñëpp ñëw toog ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp toog ba kenn manqué wul mu ne ko bismillah nee na ñoom ñëpp dañoo mujj dañoo waaru ci seen borom ni muy tare alquran naar yi nee ñi di ngi jot moom Maodo Touré doomu doomu waaw. mu jàng ak ñoom dañoo mujj waaru ci àddina mooy kii lu lan sax la fi kon li ma la xamal. alquran moom moo jëm ci bu ngeen gisee may junj naan xaw ma talsam yeeg yooyu nangam talsam yi du la ci yàlla alquran moo la yóbbu ci yàlla dafa am loo xam ne ma ko sañ moo tax muy junj mais li ma bëgg a wax dëgg dëgg dëgg dëgg ci waxu mag leneen lu dul alxuraan boo ko jàppee du dem ci yàlla doo ak lu la waaye man lu mu la mën a wax lu la mën a wax da lay tiwoori rek mais ah. alxuraan mooy yoon wi nit ñi jaar ko dem ci yàlla maaxuus moomu nag nga xam ne bi bis bu jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn sahabi yu nee na rek soratu Baqara di jàng di jàng di jàng ba Baqara jeex mu dal Ali Imran Ali Imran nee na keroog tuuti ma def ma ko parce que dama bëggoon a bàyyi ci biir al waaw Ali Imran jeex nii dem di dem moom mu ñëw nisaa nisaa i jeex ni ñëw di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba ci maa ngi maa ngi lay jeex mu mu dalaat beneen xam nga kooku ñooñu alxuraan la ñuy naaj su ko defee nag keneen kooku am na ñoo xam ne gëmuñu gëmuñu gëmuñu suñu sëriñ mais suñu sëriñ ku leen ku leen gën ci lislaam mun am ah. mën nga leen a mag saxaabatu rasul moom amuñu naw. defe naa ne. saxaaba amuñu naw yàlla moo leen feeñal noonu. waaw yàlla moo leen feeñal waaye nag boo taxawal benn wu naan salaatu laa koy jëlee ñu ne ko waa jëlee te yow nan nga continuer ci salaatu taati bi moom muy con mu continuer di compter salaatu taati ba ngeen guddee kon du ngeen bokk. salaatu taati boobu Tijaani yow dañu ko siiwal mi mel ne Mbaxane Baye Fall Baye Fall moomu ko. mais da ko yàlla taxaw bañ jëfandikoo ko moom. parce que Baay Faal yi jullit yëpp comme nag Cheikh bëgg ci orienté nit bi moo tax mu def ko muy wér. mais jullit yëpp ñoo war di def salaatu Baay. salaatu Ibrahima yi baax salaatu Ummi yi baax. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله صلاه ابراهيم وبارك اللهم صل على محمد am na sax ne fuy julli te dañu woon salaatu ci ibrahima sa taay mu mujj sa julli yàqu xam nañu nangu lool am na ñoo xam ne même bu même bu dul ibrahima ala kulli xaal julli dafa war a am salaatu ala nabi am bu dul lool rek mooy am na ñu xamul lool mais tam kooku waxu fekk faqir la rek mais boo taayaa tam même bu salaatu ala nabi ñëwul baax ne dal li wër mooy mu fi indi salaat kenn xamul nu mu toll man nag gëm naa ne salaatul faatiha mo gën moo gën ndax ñi nga yaakaar ne ñooy sama sëriñ ma óolu leen nee nañu salaatul faatiha moo gën te ñi tam kenn kenn mu ñu leen na yaak ci xam-xam du ci alquran du ci jaamu yalla du ci maam du ci yu kon nak lu ñu wax dama koy yiw. te te El Hadj Omar Tall li ñoom di feeñoo mooy xaar benn jaaro naar waa waa Guinée la mu demee mooy seen xotari danaka danaka waaw boobu mooy sama tànn moo gën bul jël beneen Abdou Karim Diallo moo ko mën a. Abdou Karim Diallo na ne. man moo tax sama affaire bi mu jaaxaloon na trop trop euh, ba sori man daal moo tax moom. xam nga islam dégg la mu am ne dañ man dem naa seeti benn imam ma dem fa am fa ñaari fan kontaan kontaan jox ma benn téere bu ñu ak ci jàng yëpp waa ji kontaan may ma ko u ñëw di ko liir di ko liir ma téléphoné sëriñ bi ni ko yow téere bi ma may gis nga ma ne ma ne ko téere bi baaxul de ma jox ko contact ak mun maa la lu ma di man xamoo ñu ko defee kon boroom xam-xam la te dugg ci biir di tàgg di tàgg di tàgg ba nga ne waajaa ngi mu commencé nag di critiqué man sax nee naa waaji bu ñu tase woon ni man danaam am fu ma ko contre man tam ndax moom daanu na ci biir dafa bind ba pare di contre ba far daanu ci biir waaw ma daal li wér mooy salaatul faatiha moom baax na lool lool lool lool lool boo tane boo tasee koo xam ne daf koy doyalal am na ñoo xam ne gëmuñu yëngu am na suñu gëmuñu yëngu am na ñoo xam ne gëmuñu tasawuf suñu suñu alxuraan bi ñuy jàng am na ñoo xam ne dañoo xam ne ñuy jàng am na ñoo xam ne dañoo wax ne nit ñu dara ñu sonn jàmm yàlla safar la am na ñu gëm loolu di naar yi jarum jamu du jaamoo yàlla du jaamoo safara ngeen ngeen ndax yéen da ngeen di lakk jàpp nañu pour safara tax yàlla gën boo mutu ñoom ñaar lakk am nañu am nañu gën a lool ñoom ñaar lakk mais nag yow yaa xam ne moom bu yàlla moomul àjjana ah. te nag nga ne man Cheikh Modou Fouti doy na ma ci bépp ci bépp façon Cheikh Modou Fouti doy ci bépp nag bu dee ci jàmbaar bu dee ci xam-xam bu dee ci aventurier dem fu nekk. man maa ngi lay wax man maa ngi lay wax benn benn côté booy jaar. macha allah. ah. Sénégal ci socle bi la. socle bi la de. lu mu ma wax gëm naa ko. am na nag benn taalibeem boo xam ne ci taalibeem yu mag yee mag a mag a mag la muy El Hadj Malick. El Hadj Malick taalibe Cheikh Umar. nee na lu Cheikh Umar wax moom la wax. Seydil Hadj Malick ne la sëriñ yëpp bu ñu dajaloo waxu Cheikh Umar lay déglu. wax weddiwul waxu kenn nag mais ki ko doy mooy Cheikh Umar. bay na. Ah. te nag xam nga bu dee boo demee ci wàllu baatin ndax dafa am ñoo xam ne dañoo am xam-xam ne amuñu baatin. baatin kenn du ko wekk. waaw ah, baatin du si ñëpp lay dem. baatin mooy xam-xam boo xam ne yàlla moo koy jàngale. waaw waaw baax a yoo xam ne moom moo baax. yow nag da jël da ñëw am xam-xam boo xam ne kenn xamul kooku njëriñ. te boo ko defee moom la réalité. mais daal li wér te wér salaatul faatiha man xam naa ndax damaa gis koo xam ne gis na ci yeneen ci ay yooni yoon te jëlul salaatul faatiha te salaatu dafa am gis na ci yeneen ci ay yoon te salaatul faatiha mais ba mu demee ba ca kanam nga xamal ko ne salaatul faatiha boobu amul naaw li ci salaat yi. amul amul amul amul. amul moom labal na lépp ndax soo koy xam nga nag jaamu yàlla tuuru yàlla si kër am na ñoo xam dañuy entraîné rek waaye tuuru yàlla benn doy na benn su yàlla plus yaa yaa yaa yaa yaa yeneen yoo xam ne daal yow mos ñu am bakku yàlla moom wér na su dee alquran wér na salaatu ala nabi wér na salaatu yëpp wér na amul benn salaatu booy def yéen ñu ngi nag la ko nangu loo xam ne loo loo def salaatu ala nabi yàlla daf koy nangu. waaye ba liggéey ko di jël turu yàlla bi wala. Eh, entre moom ak alxuraan ban moo la gën a gaaw a ci yàlla. biir alxuraan amul naw kenn du ko tëkkaleeg dara. alxuraan bañ naan yeneen seexu na ci yàlla saaba yi ma Bilaal. Bilaal ibnu Rabaa bañ ko joxee yar bi. ni ko dóoral Amar te Amar dañ ko dóor ba yaram la léegi nag ñu yeew ko ñu jox ñu jox bilaal boobu bilaal tur boobu mais xol bi dugg na ci diine lislaam bañ ko joxee yar bi bilaal daf ko yor bu mujj mu bàyyi yar bi mu daan ñu ni martaba boobu wëli wa martaba hmm. mu yar amul benn wëli bu mën a jaamu yàlla ba àgg kenn mënu ko yàlla moo tax benn benn jigéen bi ko bilaal euh, dee nopp si mu gàntal ko yonent bi ni xanaa xamul ni bilal booru àjjana la ne si boobu ko déggee dafa daw si bilal arab bu xonq cooy respect ba mu déggee kàddu boobu ñëw rek dabu bilal jaamu ko moo doon soxla waaw waa ji naan ma ne ko saaba kenn du ko tëkk wax ma yonent de saaba kenn du ko tëkkaleeg ah, wali waaye ne ma xanaa Cheikh waaye ma ne ko lépp Cheikh Ahmad Tidiane Siré wa tax may wax juróom-ñaar fukki junni yi juróom-ñaar fukki junni yi Cheikh Ahmad Tidiane Siré fas yi fas yi yeneen bi doon war pour it moom bu ci Cheikh bu ci duggee bu ci duggee la pour it ma waxuma waxuma fas wi de pour it ma rek bu ci Cheikh duggee la non yeneen bi moo tax ma ne la boo xasee boo bëgg yeneen bi doo bëgg xaalis doo bëgg àddina ñun li ñu war a fexe ba bëgg yonent bi loolu mooy suñu mais daw ñëw ci xaalis rek. ah mooy da ngay am léegi loolu amul njëriñ. amul njëriñ fexeel ba yonent bi nekk ci yow. affaire cheikh la ah. affaire cheikh la waaw. est-ce que Aji moo ne li mu am ci cheikh ko gars yi xamoon. ba dégg nga man de dama ne xam nga Fapal Fatick di ko liggéey yow boo ko liggéey yow ci sa kum da ngay am yëg-yëg ni da nga am yëg-yëg ni seer da nga am yëg-yëg ni. li mom am lu yamal ndax da ngay yek ci yalla da ngay yek yow da ngay nit da lay dox la bari abdoulaye am wax yonent bi kenn ko len ci sahaba mi la wax moy na ne al farani nga xamni yonent sax dañ nan ko bind turam sa banel mu dem wali la Abu Yazid al Bastami Mouhamad Badawi Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani Mouhamadul Xazaali Cheikh Ahmad Tijaani Sharif ñooñu ngay lim ma ni ay seen juróom ñaar fukki junni junni junni junni keroog ba Bilaal yoree lal yar bi nii yar ko bàyyi ko daal mënuñu faa àgg ñoom ci seen. wallaahi saaba du gën a xanaa. waaw ah. garaatu saaba am na ko xanaa saaba yi yi gën a jege yéen wala ay catégorie mhm. mais wala yi gën a jege yonent bi mooy saxaaba yi saxaaba amul geneen amul bëgg a tëkkale si sëriñ ah. du ma mbaxane mbaxane nga rek du moromu sëriñ mais Bilal xam nga ne doyen la woon Bilal ma ne doyen la ah ak xaalis dund wala ci seefu la est-ce que te gars yi dañuy yaakaar ne doyen yi du aljanna dañoo yaakaar ne sharia am dina duwaan. mooy mooy mooy génn moom lañ jox impôt réew mi. kii mooy téere kii. Ibrahima waaw man de si la ngeen ñees moom mayoon benn. muy dégg la rafet. Ah, bii muy muur bu mujj bi. ah muur bu la ngeen moom mayoon bosam. seize mille waaw yow maa ngi fàttaliku maa ngi doon wax ne tey ma la gisoon laaj la kii. laaj ko ku ñuy wax.